kuréel gi ñu duppee FRAPP di taxawal askan wi ñooma ñëw wootee di ci sargal jigéen ñi waxtaan def débat ngir xamale jigéeni tey ak démb. ay jigéen yu ju nekkoon daar dem di rooti bi ñuy root ñu gis ci beneen côté wu ba ay mouvement ñu xam ni naar yi ñooy paree attaqué Ndeer ñu daw dem informer waa Ndeer stratégie bi nga xam ni moom la ñu jël mooy dañuy déguisé sol yére góor ci bés bi nag nga xamante ni jigéen ñi lañ ko jaglee la ma loolu rek lañu fi wax. ñun xamuñu caaxaan. ñoom ñuy expliquer. ay sa connect ak Sacha ñu gën ko xam ci Sacha ak yeneen ñi nga xamante ay jigéen nañ taxaw ànd ak seen ay càmmiñ ASP ba xeex boobu noonu jural leen ndam. wane seen njariñ ci société bi. lépp loo xam ne da koy woote ci àddina ngir xeex nooteelu doomu aadama man maa ngi ci biir. voilà. ñu gënoon ko xam ci yëngu-yëngu askan wi feneen lañu ñu génn panéliste yi nag ku nekk wax na ci jigéen ñi wane lan mooy jigéen lan mooy njëriñam ak lan mooy taxawaayam.